asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 2 septembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag mu mel ni kay yëglekaay bii di suñu làmb fa la ñuy xëy ñëw yëglekaay bi nag tey bi mu xëyee ñëw daal li mu ñu indil mooy kii nga xam ne nii moom la bind daal mooy kii nga xam ne mooy Balla Gaye numéro de Ama Baldé Tapha Tine Lac 2 ñu ne nag ñii daal Modou Lo daf leen a génne ci ñi nga xam ne ñoom la war a dajeel moo tax yëglekaay bi nag ne fi mu nekk nii est-ce kon booy ñaa léegi est-ce que du mooy ki nga xam ne mooy adversaire u bi nga xam ne nag moo fi nekk ndax ñi ñu lim ñëpp bañ na ne moom du bëre ak ñoom kon xanaa kon booy Niang moo fi nekk mu mel ni ki nag boobu combat daal ah waras na koo mën a xool moo tax nag Bécaye mbay moom mu ngay wax ne na ay adversaire am day ñii la moom Modou Lo Boy Niang numéro 2 la wala Ama Baldé ne na ñii daal moom mën ta wax a wax a wax ba waru cee mën a bëre ak kenn ci ñaar ñooñu moo xam booy Niang la moo xam kii nga xam ne nii moom moo di Ama Baldé bu Pikine Bécaye Mbaye moo xëy di wax loolu ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb waaye ba tey yëglikaay bi tamit tey ñëw na division yi nam ko defee woon daal ñëw na tey ci troisième division ba ñoom nag dix ñoom ñooñu ka ca nekk ca biir moo di guy gi Forza Modou Anta Sa ak kii nga xam ne ni moo di rëg-rëg Yékini Junior Tyson de Papa Sow ama neex ak sitta yëglikaay bi xëy tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu mu mel ni ki rëg-rëg ma bokk ca groupe booba nag daa mel ni tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom ci ñoo xam ne ni de mu nga ca seen biir mu dib kaara das muy diggante Papa Sow guy gi saa Thiès ak Garga mu mel ni ki nag rëg-rëg mu nga ne saax ca seen biir moo tax yëglikaay bi jàpp na day kaara daas boobu moom kaara das la boo xam ne ba bu war a mën a tàng lool lay doon waaw loolu daal yëglikaay bi di ñu ko wax leneen loo xam ne moom loo nar a tàng la war a mën a doon mooy diggante kii nga xam ne moo di jët li di màggi soq ak jam téeri yëglikaay bi ne na day combat ba nag monté nañ ko ka ko monté nag mooy jamaat Events mu mel ni ki nag fi mu nekk nii day kook ku bees la koo xam ne ñëw na ci làmb ji andil ñu combat bu neex a ne diggante jam téeri ak ki nga xam ne mooy jat li bu Pikine mu mel ni ki jamono jooju nag jam téeri moom wala boog jat li mu nga ca réewum États-Unis di waajal boppam ngir di préparer wu ngir gën a mën a defaru bu baax a baax a baax yëglikaay bi moo xëy tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag benn promoteur boo xam ne moom tamit ren la fas yéene ñëw ci làmb ji day mooy ki nga xam ne nii moom moo di Ibou Sène ñu gën koo xam ci turu Petit Production mu mel ni ki nag ginnaaw ba mu fi taxawal ay combat de am na beneen boo xam ne tey yëglikaay bi xëy na wax ñu ne taxawalaat na ko mooy diggante kii nga xam ne mooy rawaan bu rok énergie ak jéggi saraat ba nekk fa nga xam ne mooy ca asalem yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye yëglikaay bi tamit ñëw na ren ci li nga xam ne mooy saison bi nga xam ne moo jeex jàppal sunu làmb ne na 173 écrits ñoom ñoo wàcc ci li nga xam ne ñoo di terrain bi jongante maanaam téeméeri écrits ak juróom fukk ak ñett yëglikaay bi xëy tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu lu mel ni écrits yooyu boobee nag tànn ci écrit muy dóor dóoraat dóor dóoraat moom ren ji daa mel ni day seeni mbir na mu daan doxe doxewuñu ren ndax 19 combats la ñu bëre am ci fukki ndam ak juróom-ñeenti defet yëglikaay bee xëy ñëw di ñu ko wax mel ni ki nag càmbar na tamit li nga xam ne nii moo am ca écrit booba nga xam ne mooy dóor dóoraat ba garga mboose nekk mel ni ki nag garga moom ñëw na li nga xam ne nii day moo di abrangam mu assuré ko waaye kii nga xam ne nii moo di ramdaan ak ñàkk bëreem di absentem ñàkk bokk ci làmb ji ren dem nga mu dem États-Unis tamit yëglikaay bi ñëw na wax ñu ko ak absence su kii nga xam ne moo di Garga moom combat moo ko të dafa du a soog tamit yëglikaay bi ñëw na ci mu mel ni nag am na fa ay xale yoo xam ne moom assuré nañ bu baax a baax wane seen bopp bokk na ca ki ñuy wax Saara ak ki nga xam ne moo di bébé bismi ninki nanka mel ni ki ñett ñooñu moom assuré nañ bu baax a baax waaye am na feneen xale yoo xam ne nii day seeni mbir moom doxul mooy giro seras ak kii nga xam ne nii moom moo di bébé garga ak fay biram ñoom daal seeni mbir moom dese naa dox na nga xam ne nii moom la ñu ko yaakaare woon yëglikaay bi xëy tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu mu mel ni nag ka nga xam ne mooy vice président wu écrit ba moom Cheikh Thiam la koy wax moom ne na saison bi ah, loo ci mën a dégg daal lii lañ doon xaar wala nekkul bi nga xam ne boog moom moo gën a gën yëglikaay bi nga xam ne làmb xëy tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu mu mel ni ki daal foofa moom dox ga ñu ca doon xaar dese naa dox waaye am na leneen loo xam ne day wan nañ ñu ko wala ñu wax ñu ko muy ki nga xam ne moo di super jamono numéro 2 ma ñu xamal mu nekkoon mbër daan bëri yàlla def nag ak wéri dab ko ba mu mel noo xam ne nii day fi mu nekk nii ñu nga cay laaj ak sàkku ndimbal kon ku mën a def te yàlla tax rek boo yeboo nga gestu ko rawatina waa làmb ndax nag fi mu nekk nii day sonn na lool waaye am na keneen koo xam ne day ci làmb la bokk moom nag jigéen la wala mu di soxna di suñu jigéen ñu koy wax Nafi Njaay Nafi Njaay bu réew mi FM loolu lu bees teq la am na jëkkër takk nañ ko nag léegi Nafi mu ngay seetu madame juuf la Nafi Njaay xam nga réew mi FM am yàgg maar fa lay defee émission làmb kon li leer ba leer waa làmb Nafi Njaay ma ca fas takk nañ ko madame juuf mu nga ca lindam yelam loolu day am di lu bees teq waaye si tey itam day jóge na dem États-Unis kon bàyyi leen ci xel di waajal nag la 8 septembre MMA ba muy def defi ca États-Unis waaye balaa dem fii la 8 septembre dafay def lu mel ni ki open peres démb nag di ngeen seetaan vidéo bi ci Leewtoo TV fa ñuy wax tablo xaadim ca jàmm gën fa la Babacar toogoon doon waxtaan ak moom ak kullu tarakindaa yàgg maar saylun rafet na waa Leewtoo TV ñu leen di nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi Babacar. ndey Kumba maa ngi lay nuyu di la ziar ah, di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ci Leewtoo TV di leen baal wax di leen baal di leen ñaanal jàmm te ko saako si ñoom waa tey di lundi ah ñu nuyu ñëpp 2 septembre ziar nañ ñëpp ñaanal ñëpp jàmm. Amin Babacar nu ñëw nag si sunu laam lu TV ñëw si sunu laam Leewtoo TV ak Leewtoo point net sunu laam tey mi ngi xëy si euh, potentiel adversaire wu Modou Lo bu mu euh, exclure euh, Balla Gaye Tapha ak Ama Baldé nee naa prétendant maanaam adversaire bu gën jege daal pour mu bëreeg moom mooy Boy Niang 2 Babacar. ah waaw loolu xalaatu suñu làmb la ah waaw mais man lu may wax rek tey Modou bu ñu nee dafa génne Balla Gaye ci adversaire am Ama Baldé ak Tapha ak Lac de Guiers dë est-ce que ñu mën nañ mën na leen a génne ci adversaire loolu yaakaaruma ko non non non jàppuma loolu xanaa kay dañ naan mu tànn ni kii laa ciy bëreel prime parce que benn euh, ak ñoom ñooñu ñëpp ñu limb kenn la ci mën a bëreel parce que mbër mu ne benn bëre moom benn combat nga mën a bëri mu jeex nga bëree jiwaat beneen bëree beneen combat quant à nag pour prétendant wala mu war a bëri ak Boy tamit lu a mën a nekk la parce que Boy Niang xale la boo xam ne ni progressé na si làmb ak bi mu si duggee ak léegi tey yaakaar naa niveau bi mu nekk mu ngi ci niveau kon moom yaakaar naa tamit bu neexee Modou Lo war na mën a bëre ak Boy Niang mais loolu tamit buy am Modou Lo lay neex waaw loolu moom suy am Modou Lo lay neex mais làmb moom lu ci nekk tamit nit ñi li ñu ëpp di wax booy faral di dégg lépp ngay dégg suuf si gémmiñu nit ñi actuellement mooy diggante Modou Lo ak Ama Baldé waaw mais nag ñoom ñëpp booy Niang adversaire am la ci kaw moom mu taalal ko loxo bëri ak moom Ama Baldé adversaire am ci kaw tamit mu taalal ko loxo bëri ak moom ñoom ba ba Balla Gaye ak Tapha tamit ak Lac de Guiers 2 mook Balla bëri nañ ñaari yoon yaa ngi dégg mook tafaatin Tine bëree gu ñu loolu combat jànq la mook Lac de Guiers 2 bëri nañ ñaari yoon waaye nit ñi tam tey man buy bëree mu mu mu bëree combat jànq en waaw. comment jànq boobu nga wax sa si la Bécaye Mbaye sunu père Bécaye bi nekk de euh, TFM wala 2S euh, ni ngi koy nuyu au passage nee na combat bo euh, combat ak Ama Baldé wala Modou ak Boy Niang daal loolu yëpp ñaar yooyu daal mënul génn si ñaar yooyu ren déwén pour Modou waaw non loolu mooy li ngay xam ne ni suñu père Bécaye ñu koy nuyu di ko ziar waaw moom itam di nit ku baax di suñu idole wala suñu royukaay bokk yaa ngi dégg ci li ñuy def parce que ndax jikkoom ak ni mu koy doxale neex ñu trop vraiment mais loolu moo tamit lu am la kanta euh, Boy Niang ak euh, Ama ay adversaire am la ñu ah mais loolu lépp tamit tey affaire xam fu muy yombe ci côté Modou waaw actuellement moom Modou moo yor cëggal guyam comme ni ko olof yi di léebe daal fi mu nekk nii moom mooy choisir entre Ama lay doon wala Boy Niang wala keneen lay doon loolu moom la mais li am ba des daal xam naa ne ak kum ci mën a doon benn mbër la mën a jël bëre ak moom làmb ja jeex mu jiwaat leneen mais li neex ba neex daal wala li nga xam ne moom la nit ñi bëgg daal mooy que ni bëgg nañ gisaat mu Lo déwén mu ci kàttan yàlla mu wàccaat ci làmb ji te yaakaar naa loolu Modou mu ngi bàyyi xel te nar na ko mook estafam quant à ku muy jël nag comme li ma la waxoon sànq rek mooy choisir mais coow li daal bëri na ci digganteem ak Ama Baldé wala digganteem ak Tapha Tine waaw. Babacar suñ jógee si roi bi du dem nag si phénomène de l'arène muy Siteu Siteu bu mu demee États-Unis dafa ay weer entraîné fa am fa combat MMA ba gañe ko takk fa soxna yibbis na nag dem fee si euh, goxam muy jàmm ak nuyu accueillir fa nag accueillir bu bu mag te waa Leewtoo TV sax ni nga fa woon Babacar. waa Leewtoo TV ñu nga foon Lutte naa jël nañ ko ci aéroport ba. bi mu wàccee ñun tamit waa Leewtoo jël nañ ko fi nga xam ne mooy ca jàmm gën di quartier dem vraiment fa laa ko fekk yaa ngi dégg ca tableau xaar yi ñu toog xam nga mu nekkoon moment yoo xam ne yu neex la parce que Siteu mook ay fansam maanaam ñoom amul kii daal amul kii star wala nangam dañuy dund. amul barrière non non non barrière seen diggante ñoom ñoom mook ñoom boo leen fekkee da nga xam ne ñii benn lañu loolu tamit di nekk acte yu nga xam ne yu jar a saluer la quoi parce que euh, moom la ñu bëgg muy seen mbër. nekk seen euh, koo xam ne nii maanaam seen idole la. waaw seen royukaay tey bu demee États-Unis jongante fa MMA yàlla may ko ndam mu amaat fa beneen combat yàlla def tamit mu takk fa soxna kon daa mel ni Siteu moom États-Unis jig na ko non naqariwul ci moom vraiment naqariwul ci moom mais tamit dañ koy ñaanal yàlla ah, jongante yooyu muy def ci États-Unis yàlla na ko ci yàlla may ndam parce que tey nag ku xas a génn réew mi ba yor couleur réew mi di drapeau bi dem di jongante jeeg ku dëkkul ci réew mi moom ñun dañ lay faral xëy na nag bu ne ci biir làmb ji nga ngay bëree diw ak diw di bëri ne ci digg bi rek yaa ngi dégg ñaanal ñëpp jàmm waaye fi mu nekk nii moom li mu dëgmal ñu ngi ko ci ñaanal ndam parce que ci Leewtoo TV wax na fa lu bare bare bari ci ñoo na fa se combat bu muy am MMA fii Sénégal le 17 décembre incha allah. voilà mooy parce que moom li mu gëm mooy nee mbir mi dafa war a waruñu rek yem ci affaire u bëre ñoom mbër yi kese suñu làmb nee war nañu mën a yóbbu affaire yi feneen parce nag gis na moom découvrir na la fa xew kon loolu xëy na moo ko gën a war a jongante war a jongantewaat fii yaa ngi dégg kon daal vraiment muy salance boo xam ne nii ñu ngi koy ñaanal mu réussir ko mais tamit dinañ ci wax bombardier mention spéciale parce que lii tax mooy olof dañ ne jinax ju jëkk tëb moom lañ naan jinax a ngi waaye jeneen ju tëbati jeneen a ngi la wax bombardier lañ jëkk a gis ci mbër ci li ñu xam ñun bokk mu njëkk a jongante MMA en tant que mbër mu tàgg ngema di bëre Sénégal ba tax na tey ay nitam ko ciy roy se temps ngi ci gis nga Tapha Tine annoncé woon nañ ci combat am bombardier même annoncé woon nañ ci mu waroon jongante a pratiquer Babacar nu jógee si euh, Siteu dem nag si bilan yi nga xam ni écurie euh, sunu lamb bi commencé na ko écurie bu mu njëkk commencé muy dóor dóoraat dóor dóoraat bi nga xam ni daaw mu jëloon ngem mu door bi ren soo moytul affaire bi titre bi dina ko rëcc ndax mi ngi si 19 combats si 19 combats yi 10 victoires la si am contre 9 défaites maanaam daal dafa jógee si kaw daan si suuf carrément dóor dóoraat. waaw loolu moom du nekkul bilan boo xam ne nii bu bu ñu bu positif la vraiment parce que 19 boo xoolee combats yi koo bëri 19 boo ci amee dix victoire am ci neuf défaites parce que rek dafa mel ni jógewu fi nga nekk mais nag li ci li li nga xam ne moom lañ leen di wax mooy encourager leen parce que li tax mooy lu mu metti metti fexe nañ ba bëree beneen bi des mooy daaw ñoom ñoo nekkoon ci kaw jëloon sax ngemb comme ni ñu ko waxee ñoom waa dóor dooraat ñu wàcc ba noonu kon xëy na lañ doon liggéey daaw ñàkkul daa am lu ñu ci wàññi loolu nag staff bi ñoo koy gën a xam mais di leen wax ne que daal kon ren moom daa mel ni moom seen rang boobu baaxul mais gis nañ fi ay xale yoo xam ne tamit wane nañ seen bopp ku mel ni Saara ku mel ni Cheikh Tidiane Niang ñooñu vraiment gis nañ leen ñu wane seen bopp bu baax a baax ci biir écrit dóor dóoraat boobu ah, donte que nit am nañu wàcc am na ñoom tamit absenté nañu ku mel ni euh, Ramdaan xam nga xamoon nañ ko ci écrit bi muy jongante mais vraiment gis nañ ko daaw saison bi jeex bëriwu ci mu ngi États-Unis Garga moom vraiment ñëw na tamit assuré intérim tête de file bi parce que bëri na daan Gora Sock tamit nekk ba nga yaakaar ne foofu la mais def tam des fois tamit contre performance bi ñëw nga wàcc mais après da ngay liggéeyal pour gën a avance dem si kanam. si écuries yooyu la ñuy des ndax nee nañu ren euh, saison bi ñu génn cent 173 écuries ñoom noo wàcc si si si si si làmb ci waaw loolu de taux bu bëri la parce que 173 écrits parce que tuuti mu yegg kon 200 te defe naa 160 écrits bu ñu 173 écrits suñu bëree vraiment nekk na li nga xam ne ni a ah, am na solo kon loolu la wax ne te fi mu nekk nii làmb ndey kumba moom soo bëggee dégg dëgg moom vraiment daal mu ngi jéego bu baax a baax a baax parce que tamit loolu lu ama am solo la écrits yi bëri na ñu ngi ñaan écrits yëpp rek ku la tax ñu sanc la ña la sanc ngir la tax loola yàlla nañu gis lu kawe seen jot ci tax ñu sanc la mais daal ah pour man bilan boobu am na solo trop trop su fekkee ni promoteurs yi ñoom nekkuñu ci promoteurs yi nekkaguñu pour le moment négocier ay combat yu mag maanaam VIP yi ñoom daal ni ngi yenn promoteurs yi ñoom ni ngi ci combat yu ndaw yi moo tax euh, structure bi nga xam ne mooy structure bu bees bu ñu koy woowee Jaman Evans taxawal na Jet Li ak euh, Jam Thierry Babacar. waa Jaman Evans waa di lu bees ci làmb ñu leen di taal jàmm di leen ñaanal li tax ñu ñëw it yàlla nañ ko ah, gis wala ñu am ndam ci li leen indi.

Ibou Sène bu ñu ko waxee mooy petit production sama rakk ji borom Ngoy Aliou si la dëkk ca fa nga xam ne mooy Ngoy di doomu Bawol ak Bambey ma koy nuyu di ko ziar di nuyu tamit copain yëpp ku mel ni Jib Sène ak Modou Pouy ak ki nga xam ne mooy Cheikh bas waaw tamit di nuyu Lamine Seck bu TV ndax ñun ñëpp parce que mën nañ ne benn kii bi la quoi. benn groupe bi la benn groupe bi kon petit ñu koy ñaanal vraiment tëgg na ay combat mu ngi taxawal parce que ren la bëgg a njëkk ñëw parce que doon na tëgg ci régions yi rawatina dëkkam di Bambey ndax tëgg na fa korité kon nag bu amee tey courage ñëw ci làmb déwén ngir première fois am ñu koy ñaanal tamit mu yegg si ak jàmm rek parce que tamit nit ku ne daal na nga osé jéem a def dara parce que ci loolu ci ngay mën a avancer pour dem ci kanam daal Babacar nu jeexalee ak euh, Leewtoo point net Leewtoo point net ni ngi ñuy wax ni que euh, mbër yi nga xam ne dañoo demoon ci Jeux africains ci lutte euh, gréco bi yibis nañu dem ak ñaari médaille ci huit mbër ñaari médaille rek ñaari médaille kese la ñu am benn bi muy médaille d'argent Anta Samb moo ko jël beneen bi médaille de bronze Jean Bernard Diatta mais nag bu sedd la ñu yibisi Babacar. yibisi bu sedd <laughs> xëy na ñàkk médaille yu bëri yi moo tax mais dañ leen di encourager parce que le fait que ñu. dem participer rek fa seen mbokk fa seen moroom africain yëpp di jongante defe naa loolu rek de ça ah ku liggéeyul doo ko mën a def waaye nag boo demee itam nag nekkul na dangay ngay force da ngay gagner da ngay compétir say moroom nga fay dajel ay dëkk nga bëgg li ñu bëgg waaw ngeen bokk bëgg-bëgg bi ku gën a liggéey rek xëy na wala nga gën a am ambition xëy la ko yàlla yi jox kon xëy na ñu ngi leen di encouragé doon nañ xaar lu ëpp loolu ci ay médailles mais comme fexe nañ sax ba indi si jàmm tamit loolu ak cant la di leen ñaanal yàlla rek yeneen échéances yi ñëw yàlla na leen yàlla dimbali ba ñu mën a am lu ëpp loolu mais tamit di gën a ñaaxaat rek staff technique bi xëy na ñooñu ëpp xam-xam sax mais ñu gën a yokkaat liggéey bi parce que tamit euh, bu ñu sañoon suñu participer vraiment performance ëpp noonu mais nag ku dul may sa bopp loo am war nga koo jël te yam ca sant ko yàlla te liggéeyaat. jërëjëf Babacar si kàddu yoon leen di tàggoo di leen dox dig jaajëf suba yi incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay Mère Sow depuis Mauritanie nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Dadi Gueye di nuyu Astandine depuis Italie chéri Khadija Diallo di nuyu sama doom yooyu nga xam ni ñoom tey na reprendre nañu euh, école bi ndax école française programme français la ñuy def muy maam Diarra Penda bébé Fallou bébé Rokhaya ak ki nga xam ni mooy junior ñoom ñëpp ñu nuyu depuis Parcelles Assainies am na solo Ndeye Coumba Fall di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ah di wax que ni ñu ngi vraiment di amaat rek mbégte ci internet yi ñuy topp fu ñu mën a nekk si àddina bi di leen ñaanal jàmm parce que bu dul ñoom mbir yi du sotti kon ñoom ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mais tam tey damay nuyu kenn koo xam ne dama ko naan mention spéciale ñu koy wax may ba may ba di doomu père ba dëkk ca parcelle wax ndeysaan Ndeye Coumba Fall xam naa bés booy am borom kër bu la dalee di tag danaa la booleeg may ba. lu may la muy jaay am na solo. lu muy jaay. ay mbaal yi jën yu doy doy waar. xam na mba ay mba yow parcelle la dëkk unité 19 ma koy nuyu doomu père ba di nuyu <laughs> may maa lay bëgg bu baax a baax a baax mais tamit di nuyu koo xam ne nii foofu la dëkk di sama tippo mën naa ne Rama Jeeju di caissière nekk fële ca station sel bu nekk Fader bu sama koñ mu koy nuyu dëkk 19 mais di nuyu tamit Nafi njaay xam nga Nafi njaay bu nekk Rewmi FM tey def émission làmb te mu njool madame Diouf la léegi takk nañ ko. kon dama des ko yóbbu ca may ba noo yow sa bos a ngi ñëw daal di kay noonu naa ko na gaaw na seere cadence bi rapidité daal il faut rapide il faut nga gaaw mais di nuyu ñëpp tuuti yaay Sarr moom tamit maa ngi koy nuyu moom tamit léegi madame Sarr la. depuis lu yàgg ah xaw na def ay quelque mois tuuti yaay Sarr moom tamit am naa bu ñëwee foofu mu yóbbu ko ci may ba du mën a ñàkk di ko nuyu di nuyu. yóbbu fa yàgg maar noo yàgg takkagul bu takkee laa ko fa yóbbu foofu boobu doo yóbbu ko amul ab célibataire foog ma bàyyi ba mu takk ba pare mais kontaane naa la Khady Rose Ndiaye ca Allemagne du ma ko fàtte. nuyu Aïda Diouf Aïda kenn day moom borom maquillage bu sell bi. ay madame Niassiri Mohamed temps yi xam naa. lu ko jot ah. Aïssa daal yàlla na ko yàlla defal jàmm rek di nuyu mère Sougou ak Thiat sama séeri boobu rakki Aïssa.